jéggaluwaat encore ci guddee bi nga xam ne activité bi guddee nag ko tay waaye mën nañu wax ne jar na ko parce que ku am ay ndaw yow xam ne jéemuñu xool ba xam lan la leen dëkk bi mënal mais dañuy jéem di xool ñoom lan lañ mënal dëkk bi ñu di si dox di si wax di si jëf donc ñooñu ah, taxawal leen ci situation yu mel nii day am solo ah di wax rek ne activité yu mel nii ñun dañ koy rafetlu bu baax a baax a baax a baax a baax parce que comme ah, tata ni mu ko waxee léegi rek benn élève niilul benn élève nilaarul problème bi rek mooy allo mooy manque de moyens yi nga xam ne moom la parents yi di jànkonteel ah, moo tax yenn saa yi résultats yi du ñëw comme na mu war a ñëwee donc bu ñu amee ay jeunes yoo xam ne taxaw nañ pour jàppale seen ay rakk seen ay jarbaat seen ay doom pour que matériel ba nga xamante ne euh, waroon nañ ko am mënuñu ko am ñu leen koy compléter ah loolu c'est des gestes à saluer di kontaan bu baax a baax a baax a baax si taxawaayu euh, Astou Diop comme logo wala slogan mooy ambassadrice des enfants nee na moom ba mu nekkee xale.

comme ni que madame pender di faral di waxee ñamu njulli selbe yi si lañ waaw kon euh, bu jëlee ay table banc euh, équiper les dix écoles publiques ki si gën a néewle am na quarante table banc donc loolu aussi ce sont des gestes à saluer ñu si kontaan bu baax a baax a baax a baax a baax ah suñu ay frères yi nga xam ne aussi am nañ bac ah ñëpp xam nañ orientation yi nga xam ne moo nekk si euh, problème orientation yi nga xam ne moo xew léegi mu dem débloqué presque cinquante bourses scolaires pour euh, bachelier yooyu noonu loolu yaakaar naa aussi euh, lu ñu war a xam la lu ñu war a encouragé la te wax na ma aussi si biir xam ne lii c'est une première édition une première édition nag mooy euh, fondement bi ñu ñaan yàlla fondement bi dëgër ba étage bi mën a kawe ca kaw a kaw a kaw a bañ mën a am ay gratte-ciel salaamaaleykum samay mbokk lébu samay mbokk laakoon ñaakoon Faakon maa ngi nuyu ñi fi toog yëpp maa ngi nuyu euh, premier magistrature de la commune muy le ministre et maire monsieur Abdoulaye Diouf Sarr nga xam ne euh, il est empêché moo tax euh, ñëwul mais derrière tout ça moom moo ñu jàppale tey bu ñu mënee moom moo ñu jàppale maa ngi gërëm les directeurs d'école qui sont là de toute la commune de Yoff may excusé wu si retard bi ma accusé vraiment bi ngeen toogee yàgg na je vous présente toutes mes excuses parce que tey mën naa ne vous êtes nos autorités premières car c'est vous qui formez les ministres c'est vous qui formez les présidents c'est vous qui formez les élites de ce pays vous étiez professeur jusqu'à devenir directeur d'école on doit vous féliciter et vous remercier et vous encourager mois Astou Diop je suis euh, une jeune boo xam ne tey damay bëgg wax ci wolof man dama dund cas social dama dama juddu ci famille boo xam ne yàlla peut-être may na ñenn ñi ñuy mayu leen man peut-être ma yaay boo xam ne da doon daan dooleem di góorgóorlu mais chaque jour mu ne ma Astou bul ñee sa benn moroom bul ñee sa benn moroom lu mu gis yow amal gëmal sa bopp mooy lan li nga am doyloo ko gëmal ne sa benn réussite lenn la mooy nga dem jàngi boo jàngee di nga réussir fi nga bëgg a yegg di si yegg moo tax tey may woo sama rakk yi toog fii yëpp les enfants vraiment vous êtes euh, xale yi man da ngeen doon pàcc boo xam ne vous êtes une priorité dangeen nekk priorité da ngeen nekk yitte si samay mbir man lépp lu may def xale def si jiitu ma teg si jigéen bu ma waxee loolu tey ay dara bi toog fii nga xam ne maag moom damay def seede bu bu doy waar euh, man ak jëkkëram nga xam ne mu xaddam Cheikh Ibrahima Niass la jëkkëram maak moom ñoo bokk ki ñu jox weddi salaatul fatiha xale laa mais dama jël weddi cheikh di weddi weddi cheikh tarbiya kër Maulana Cheikh Ibrahima Niass di dund vie spirituelle boo xam ne dañ ko boole suñu vie sociale parce que diine mooy lépp tey maag jëkkëram ñu bokk mu xaddam muy Cheikhul Khayri Aïdara ma koy euh, nuyu muy sama mu xaddam si lu ma nekk moo ngi ci di ma ñaanal si zaahir si baatin maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm à travers les caméras ndax xam naa ni dina ma seetaan may euh, ñëw di wax euh, xale yi dama bëgg lancé leen benn message bu am solo gis nga fi ma taxaw nii tey euh, j'ai xale yi nga xam ne tey dama leen recenser au niveau des écoles publiques les dix écoles publiques de la commune ma ne euh, na dama am un projet pour les enfants un projet boo xam ne ça me à cœur en tant que ambassadrice des enfants dama bëgg nga recenser ma xale yi nga xam ne dans les écoles suñu ubbee école benn cahier la ñuy yor pendant quatre mois parce que moi je l'ai vécu dama ko dund ba Child Fun que je remercie la directrice bi nga xam ne dafa ma jàppale muy Yaayka Diouf la directrice de l'Afrique de l'Ouest moom moo yor Child Fun à travers Pencum Ndakaaru à travers PDF Jàmmalaay avec tonton Omar Ngalla Diène Yaayka elle m'a orientée elle m'a appuyée en en tout au large nga xam ne moom tey Child Fun ak les avec avec yi suñu yaay di def moom mooy directrice au niveau de l'Afrique de l'Ouest ma koy remercier may nuyu aussi fondation Sonatel à travers madame Rokhaya Solange Ndir nga xam ne ñoom ñëpp taxawu nañ ñu euh, may nuyu euh, euh, ñi nga xam ne c'est des acteurs ñoom ñoo ma jàppale sur toute la ligne may nuyu toutes les personnes de bonne volonté yi nga xam ne ils m'ont appuyé en cette dans cette journée et les enfants je reviens sur mon message man dama ne gëm leen seen bopp ngeen jàng parce que jàng mooy avenir réew jàng mooy defar économie dëkk jàng mooy gérer portefeuille yu dëkk donc man en tant que seen ambassadrice les enfants bëgg naa fi ma taxaw nii tey suba ngeen taxaw fi may toog di leen déglu ngeen di wax man may kontaan donc loolu moo waral euh, situation bi ak activité bi yëpp les directeurs d'école nous avons décidé de d'offrir dans chaque école, les dix écoles de la commune, d'équiper minimum deux classes en table-banc. Parce que bon, Djambatbi, il y a un certain moment, il y avait un problème de, de, de renouvellement des tables-bancs. Mais par la même occasion, je me remercier M. Bekay Diop, le directeur de l'équipement scolaire du ministère de la Santé, du ministère de l'Éducation nationale, autant pour moi. Vous savez, moi, je pour ma mën a équiper école yi nga xam ne ñoo nekk dans mu def ko ak une simplicité extraordinaire ma bëgg ngeen tàccul ma ko bu baax ndax ku baax la Dagana département Dagana la Bécaye nekk nekk maire Ross Béthio mais lépp lu ma yëngatu nee na ma touche bi nga laal daf ma laal parce que la petite enfance c'est une priorité loo ci yëngatu damay fu ma mënti aw dinaa fa aw pour man ma jàppale la donc kooku ku jar a remercier la je pense que su ma waxee su le contrôle des directeurs d'école vous connaissez le directeur de l'équipement scolaire du ministère de l'éducation nationale maa ngi euh, ñëwaat ci message boo xam ne mooy euh, nos autorités communales ñu di leen remercier di leen wax aussi nañ gën a appuyer euh, la petite enfance c'est une priorité je sais que ñoom ñu ngi siy liggéey mais nañ gën a nañ gën a dooli taxawaay bi gën a dooli jàppale bi parce que ñun tey bu ñu taxawee fii certes dañuy politique man damay politique mais man damay def politique de développement je j'ai une dama am option politique mooy politique boo xam ne damay servir sama commune sama commune day nekk sama priorité lépp lu ma amee ci sama commune laa koy jox et par la même occasion bi ma indee cinquante bourses on m'a offert 75 bourses de formation dans les écoles de formation de la place ma war ko remettre tout à l'heure à tous les étudiants mais dama jël 25 yóbbu ko département Podor waa Podor ñoo ngi fi toog ci présidium bi ñoom ñëpp depuis 72 heures ñoo ngi Dakar ñëw exclusivement ci activité bi ñëw Yoff ndax man seen doom maa dem jege leen demaale jege aussi sama origine muy sama mbokk yaay yi nga xam ne Madina Njaaj be lañ nekk man sama maam Thierno Hamdou Rabby Ndiaye ku ne xam na ko muy muy muy muy vraiment euh, téele alxuraan ci wàllu si wàllu diine moom mooy sama ndijaayu yaay donc man si këru diine yi laa bokk moo tax bu ma melee nii peut-être du ma bett li naan bu yan bi diisee jikko ju du nëpp donc loolu moo war ma leen di remercier di remercier nos partenaires privilégiés la presse je remercie Leral à travers leur PDG qui a décidé de faire un direct pour activité bi ma koy remercier bu baax vraiment kontaan na trop je vais procéder à, à la remise symbolique des directeurs d'école car le temps ne nous a pas permis à la situation donc directeur d'école yëpp dama leen di remettre euh, 20 kits boo xam ne c'est composé d'un sac des des matériels des cahiers et des matériels géométriques tout composé tout le matériel au complet Par rapport à, par rapport à, à, à l'équipement, j'ai équipé les 10 écoles qui sont dans toute la commune, sans exception. Sans exception. De Taounor à Djamalai, tous les directeurs sont là. Je n'ai euh, laissé aucune école publique de ma commune. J'ai donné à tous les directeurs d'école des bons pour les tables bons, afin qu'ils puissent souffler. Vous savez, on dit tout le temps que la demande ne suffit jamais, mais il faut toujours augmenter pour le besoin et aider les autres pour pouvoir mettre dans la protection les enfants. Parce que parfois, nous voyons dans les écoles, les enfants sont dans une précarité extraordinaire. Euh, ici, à Dakar, nous voyons des situations. Lorsque nous allons dans la banlieue, c'est autre chose. Donc, nous avons eu à faire beaucoup, beaucoup de déplacements par rapport à ces situations. Et c'est ça qui nous a inspirés pour que notre commune soit au large de notre priorité, en totalité absolue, irrévocable, dans une totale discrétion et dans une totale simplicité. Sur le plan didactique, avec les fournitures d'école, j'ai recensé 20 cas sociaux. Euh, il euh, y a l'école 2 qui ont même fait en sorte de me donner des enfants orphelins, que j'ai 20 enfants orphelins. Parce que vous savez, moi aujourd'hui, je suis orpheline de mère depuis le 7 avril. 2019 l'année dernière j'ai perdu ma mère daaw laa ñàkk sama yaay donc ñooñu dama leen di boole parce que euh, ñoom si ndaw lañ ñàkkee seen yaay man mën naa xawal naa mënal sama bopp as tuut kon maa ngi imaginer ñooñu lan la ñu war a dund et ça me touche beaucoup c'est pour cela je suis dans cette lancée pour les aider moi euh, par rapport à la petite enfance je fais un appel tout d'abord à toutes les euh, organes les ONG les organes compétentes pour la question de l'enfance, pour qu'il m'accompagne davantage. La première édition, elle est là. Je serai en deuxième édition. La deuxième édition, je voudrais au moins avoir 1000 élèves. C'est mon souhait. La troisième édition, je vais avoir plus. Je prie que le ciel me laisse sur terre, que je sois toujours vivante et je continuerai ce combat. Le vrai combat dans la vie, c'est la petite enfance. Car ces enfants, demain, ils seront les élites les hautes autorités, les hauts fonctionnaires de ce pays. Alors investissons davantage dans la question de l'enfance. C'est ce que je dis à toutes les autorités compétentes du niveau national, du niveau international. J'ai investi beaucoup quand même. J'ai investi beaucoup, je suis partie avec mes propres moyens. Peut-être des gens sont venus en appoint. Je les remercie pour les gestes. J'ai décaissé quand même de mes propres fonds, qui en ont ici. mais je l'ai fait avec euh, beaucoup d'amour, beaucoup d'amour et beaucoup de simplicité et beaucoup de plaisir. Car vous savez, euh, ma mère m'a recommandé quelque chose avant qu'elle décède. Elle me dit, sur son lit d'hôpital, dans la difficulté maladie, elle me dit, Astou, je ne sais pas si je vais rester ici. Je sais pas si je vais toujours vivre, vu que je suis très malade. Mais je te recommande quelque chose. c'est d'aider ton prochain, sans calcul, sans rien attendre en retour. Et je remercie ma mère. ma koy ñaanal sama yaay maa ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla xare àjjana firdawsi jàmbaax ndax xadi aw ci yoof kenn dootu ko présenté ndax nit ñi xam nañ ko bu baax ndax yitteem ak bëgg nitam vraiment je vous c'est ça qui est ma source de motivation en l'homme et quand je parle des enfants j'ai même les larmes aux Parce que c'est une priorité, en fait, pour moi. C'est une priorité. Et c'est une priorité absolue qui séjournera dans mes actes. Et les Yofois, damay ñaan waa Yoff je suis politique dëgg la mais l'identité de ambassadrice des enfants est une priorité dans ma vie regardez-moi de cette tête et la vie continuera en même temps je vais remettre les bons des tables bons au directeur pour qu'il équipe en même temps les écoles pour que les enfants puissent être dans de très bonnes conditions. Je vous remercie. Merci de votre aimable attention.